waaw ci ay bakkan kay ñoo wadd jàppal ni kenn ki Cheikh Ibrahima Koli la ab bal lañ ko fëgg mu jaara fa ñàkk bakkanam ma ne day kenn ki mu ngi tudd Baye Cheikh Diop moom it dafa faatu ci buntu atelier mécanique am di ay blessé yu grave tamit yoo xamante ni fësal nañ ko démb ci manifestation bi enquête ni kaay ne waaw manifestation yi kay bokk na ci nag lu nag ci lii di teg loxo ga ñu teg loxo Ousmane Sonko moo yokk ci xaar mi karaw état bi nag jàppal na démb fruit frajee nañ ko malmené ko démb nag force de l'ordre am nañ dëgg nag lu leen day ni tollu ñoo wadd waaye loo ci mën di dégg jàppal ne ASP bi moom dafa mujjee rëcc ginnaaw essence bañ ko sotti ngir jéemoon koo taal loo ci mën di dégg mooy démb moom réew mi jaxoon na lool vox populi ne yokkal du ñaar de ñett ñoo daal di faatu nga ne ma waaw ñett ci ay bakkan ñoo daal di wadd démbul ci li xew ci ndakaaru njaay jël job ak li ko wër nga ci réewu Sénégal vox populi ne réew mi koy démb le pays à feu et à sang les déluges de violence aveugle n'épargne rien démb moom li ñu gis ci réewu Sénégal jax-jax gi fi am tiital na lool askan bi moo tax alxames rek tàng de ajuma jee ko nar a raw l'évidence yéenekaay ko bind ne vers un vendredi de tous les dangers ajumay tey jii de dana mel ne nag ci jàmmaaloog buur yi ak tubaab ya jàppal ne tey jii nar naa wex xatt bi nga xamante ni bëgg nañoo amalub mars ñoom ku jógi te amul cub sañ-sañ di autorisation ci l'évidence yéenekaay ñu fekk fa Serigne Fallou Mbacké muy woote ab résistance ngir nag jëmale ci nag oppression maanaam fitnaal ak jaay doole gi mu jàpp ne njiitu réew président Macky Mbàkke sëtub Serigne Touba Xaadim Rasul bi ne loo ci mën dégg mooy régime Macky Sall bi régime bu ko gën a bon mësee si koo gis te moom ay pexem yépp yàgg na koo nas ci wàllum nag complot ak duel ngir nag lu jëm ci safañi yoon ak ak yelleefu doomu aadama yi bugaan géey dañuy fell ko ne ko waaw sang bi Mbàkke wax nga dëgg loo ci mën dégg jàppal ne njiitu réew président Macky Sall bi moo jeexal tàkk ak nguuram c'est fini ni jàngi tubaab c'est la fin du régime de Macky Sall ndax nag xat-xat bi ñoo suur këll doyal nag ci président Macky Sall tribune yéene kaay tamit signal bu Sen TV Walf TV ah, dañ koo coupé te Sénéra moo fa jaar RFM moom ak Soleil moom dootuñu ko nettali ndax dañ leen taal ba ñu tàkk jëppét moom buggaan gi dañuy tontu na de ci nag coupure boobee jàpp ne ne nga ñam nañu xam ne nag loolu tax lu toll na trafatal ay nañ ñu dellu ko ginnaaw askan bi ñoo mer ñoo suur këll nguuru ma Macky Sall gi l'observateur ni waaye it am na loo xam ne kenn mu ne su ko nangu inacceptable dem it dañoo taal jëpp lii di groupe Futurs Médias te loolee ça ne passe pas ana lu ci yoon taskatu xibaar yi loolee nekk li nga xamante ni mer nañ ci ba Dakar Times ni moo tax de série de manifestation yi ngir nag Ousmane Sonko am afiam tuddee nañ ko Dakar Sambras maanaam Dakar de démb ni mu am ci manifestation donte ab couvre-feu am na ñu jàpp ne kon dañoo violé lu jëm ci wàllu nag couvre-feu ngir nag jàmmal ak force de l'ordre yi waaye loo ci mën dégg soo su àndee kon kay nañu wax ni Sénégal dëgg nag ngir nag jàppalekat yi Ousmane Sonko yi ñoom waajal nañ sax ab marche bu rëy ci àjjuma ji loolee nag moom la ñu duppee vers un replay de Malaw ak raay bi maanaam nag la ci diggante Malaw ak bi waaye borom bi police de waajal na dispositif bu am solo taxaw temm ngir jàkkaarloo ak ñoom lu jëm ci centre ville bi moom jàppal ne boo moytul ab jéego du fa seq te it buñ sukkandiku ci yëglekaay bi kii di Antoine Félix Diome la mu wax leen nañ force su restera à la loi dëkk bi moom kenn du ko salfaañe te moo yéen kaay ni deuxième journée démët l'état touché pas coulé maanaam di dëggal wax jooju ne donte ñaareelu fan démb ak bërki démb ñu jax-jaxal dëkk bi taxul benn yoon état bi daanu donte laal nañ ko laas yéen kaay ni ki ñu bëgg a en grande instance daal dinañ retiré dossier ba ci juge Seck jébbal nañ ko nag juge Samba Sall jàppal ne Ousmane Sonko moom bu ñu sukkandikoo ci suuf a mooy par A ou B Ousmane Sonko dana wuyu ji jàkkaarloog doyen des juges ci àjjuma ji les écu yéen kaay ni Sonko nag la koy dal mu xamagu ko de Sonko risque le mandat de dépôt su moytuwul nag daañu ko fëgg mandat de dépôt ndax juge bu cëm cabinet boobee daal nag sànni pataas bu tàng ba jër fii nag di Samba Sall ne nañ ko di ab mandat demee ni a violence yooyu ak pillage yi yàqu-yàqu yi ñu nemmeeku yëpp de ci biir mi jàpp ne lu ci mën di am mooy le gouvernement condamne et annonce des poursuites ci waajal nañ ay daan ak képp koo xamante ni yàq nga cax-caxate ak waggati yoon di luwaa bi jàppal ne daañu raq sa ndigg loolee la solo yéene kaay xëy ko biral aca mangook ci la kaay ngoog lu ci man di am daal nañu ànd ak dal tey jàmm rek mooy lépp ci ci la lépp xaj yàlla jàmm yàgg Sénégal lii de laa wax ba li ngeen dégg aljuma mubarak